asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun ñoo ngi am mbégte di leen nuyu di leen nuyoo fii ci kër euh, Serigne euh, Naar Diène moom Serigne Bara Diène moom Serigne Issa Diène ci teewaayu euh, taawam bu baax bi Serigne Sidi moom Serigne Naar yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te doon ak wéram mbokk yi xam ngeen ne Serigne Sidi moom Serigne Naar dégg ngeen woote bu rëy bi nga xam ne moom la woote woon mu jëm ci bu ñu àggee ci fukki fan ak juróom ci weeru kor yi dëppoo ak fukki fan ak juróom benn ci weeru tubaab euh, sakku woon ci jullit yi ak taalibe yi ak soppe ak xarit yëpp ñu maase daje fii ci kër Serigne Naar ngir fàttaliku ko fàttaliku ko loon ci jàng alquranul karim fàttaliku ko ci lan ci jàng xasiday Serigne Touba yi fàttaliku ko ci lan fàttaliku ko ci bernde waaye def ay salaatu ala nabi waaye loole nag yaakaar naa ne bokki taalibe yëpp àndandoo nañ maa ngi sa wuy si Serigne Sidi moom Serigne Naar tey jii ci altine ji yemoo ak le 16 mais dëppoo ak fukki fan ak juróom ci weeru kor yi gis ngeen ne Serigne Sidi wowoon na njabootu Serigne Touba yëpp wowoon na it cheikh yi Serigne yëpp waaye wowoon na mboolem taalibe yëpp loolu nag moo tax tey jii ñu daje ci kër gi fas yéene ànd ak suñu caméraman yi di El Hadj Fallou Sylla ak Serigne Ousseynou Mbodj ci seen télévision Lamfal TV ak seen télévision Touba TV ànd ak yéen ci biir kër gi. wan leen ziar yi nga xam ne moo ne ci biir kër gi waaye ànd ak yéen dem ci kër doomi Serigne Naar yi wan leen ziar ya fa nekk ànd ak yéen ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi ñëw ak réaction yi nga xam ne ñi ngi koy amal ci biir kër gi. kon ñoo ngi doxantu ànd ak suñu caméraman tabbi ci biir màggal gi nga xam ne moom la sëñ Sidi moom Serigne Naar woote woon.

أبو بكر الصديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى القار أنه أبو عاصم الفاروق مدر ونادر به تستدين المصطفى عليه السلام أبي ساب من دار أبو سبتي المختار وهو ابن عمه علي على خطيب نعم المجرب أصاب رسول الله إني قديمه مهيبا لكم في الله والله يغلب نهاني حب الله بنعم المهيمن عن الميل أمه نبست اللقاء لمولاي وحده قديما لمن وله في كلة السنون نسبت بلا الميت بالحق مادحا بفرد على خلق ولا الهديدن نويت دوام السكر والسكر قائما لخير الورى لمن أزيد المزين نبي الرسول الخير رب وسيد خليل حبيب نجي قريب ساكر وهو ساكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مسلم بصير لمن لله بالعقل نبي أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نذير بلا نسر عليم مؤلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناسب وهو ناسب هو الآمر الناهي نقيب رقيب مستجيب مسسب مسير ولا سوى وماء ومحسن نسيب عسيب سوء عطايا مقدم هو الناس والميزان منعم الممكن نبي له سان عزيم مبين هو المصطفى المختار وهو المختار

نصيحته بسر والجار لي بدا بخادم الرحمن مسدرا يوسر ziar bu baax xanaa kàddu yi rek ak feddliwaat ndax sëñ Sidi mi taxawaayam ci yoon wi euh, bu fekkente ne bis bu rëy nii murit bu ne soo ko mënee war ngaa ñëw euh, njukkal ko ndokkeel ko ñaanal ko ndax taxawaayam ni mu taxawee li muy wane rek mooy Cheikh Issa la mu daan def ci wetu Sëñ Touba loolu du fi jóg mukk ci àdduna loolu saa su ne mi ngi koy dundal ci ku fi toogal Sëñ Touba ay naalam naal lay doon yoo xam ne naal bu mu ci yëkkati nga xam ne aw fit ak gëm Sëñ Touba ak jox ko sa bopp ba mu jeex tàkk moo koy liggéey kon yàlla na fi yàgg te wér <laughs> nee na mi ngi feddali wala bu baax a baax tamit nee na Baye Lamine toujours da koy téléphoné. woo téléphone. di ko wax ni ko waxtaan yi ngeen def ci seen télé bi. di ko wax ni waxtaan yi ngeen di def ci seen télé bi. daanaka moom rek moom di daanaka moom rek lay déglu. waxtaan yu ni ko ndax waxtaan yu ni déggoo dégg ko fenn. lépp ci xam-xam lay tegu. lépp ci xam-xam lay tege. ak jub. ak tegu ci yoon rek. ak tegu ci yoon rek. lépp rek. lépp rek. waaw li ngeen di wax daal moom. lépp lépp tegu na ci lépp tegu na ci aw yoon. dama ciy ci bëccëg lool ñaare bu ko suba gi rawee mu déglu ko ci bëccëg gi wala ngoon gi. ngeen boole koog liggéey bu rëy bi ngeen di liggéey ak jëf ji. te Serigne tubaa rek tax ngeen di ko def. nee na bég na ci bu baax. nee na mi ngi leen di bégee bu baax a baax. di ñaan yàlla ngeen daje lépp ngërëmal Serigne Touba. ak ñun ñëpp rek. jërë ngeen jëf jëf xam nga Cheikh Issa 48 la fi jóge. nee na xam nga ni Cheikh Issa 48 la fi jóge. ñaar fukki at bay ñaar fukki benn dox hmm? lu mat ñaar fukki at wala ñaar fukki at ak benn dox na fi. ci nekkuk sëriñ Touba nag. ba Touba di ab gor. ba tuubaa doonee ab gor. xam léegi day jaaxal ca jamono boo nee na boo waxee tuubaa ca melokaanu jamono ji day jaaxal ñu bari. booba dara nekku fa woon. fii Cheikh Issa nekk tey. fii Cheikh Issa nekk tey. Serigne bi dafaa ñëw Serigne Touba. dafaa ñëw. ànd ak Cheikh Issa. ànd ak sëñ Mandoumbe. ak Serigne Touba taxaw ci barab boobu. Serigne Touba taxaw ci barab wax ni fii nu taxaw. wax ni fii nu taxaw. barab bii. mooy bunt bi gën a gàtt ci dugg àjjana. mooy bunt bi a gàtt nee na xam nga ni ñaar fukki at dox na seen diggante. gis nga ni barab yi xate. gis nga ni barab yi xate. xam nga defuñu fa kenn. xam na ni foofa day defuñu fa woon kenn. kon moom da doon ab cëram. kon moom loolee da doon ab cëram barab ba. bi mu wàccee liggéey moom nag. bi mu wàccee liggéey moom Cheikh Issa. ñu indi ko ñu indi ko fa. weer teg ci lu mat juróomi weer jëm juróom benn am na kilifa gu fi bàyyi ko am na geneen kilifa gu fi bàyyi ko woon nee na xam na turam ak ko santam booba ña ngay sange fa démb guy taxe ca jamono yooya sëñ Fallou woo bàyyi Malick Fall mi yor barabu Cheikh Issa. sëñ Fallou woo Baye Malick Fall mi woo barab mi yor barabu Cheikh Issa bi. booba néegum ñax moo ko tiim tabax. booba néegum ñax moo ko tiim kenn tabaxagu ko. ni ko. ni ko. diw dafee bàyyi koo léegi. diw de dafee bàyyi koo léegi. waaye damaa bëgg. waaye damaa bëgg. nañ ko waajale fa barabu Cheikh nan ko waajale ci barabu Cheikh Issa. fee ñu ko daa defee. fee ñu ko daa defee. nañu ko bàyyi. nañu ko bàyyi. ndax moom képp kuñ jaaral ci barab Cheikh Issa bii soo matul dana la mottali soo matul dana la mottali dina la won sëñ dina dina la won sëñ Touba te bala ko won te bala ko won dalay beerneel ba nga doyal dalay beerneel ba nga doyal loolay ci na loolu mooy illa bi xam nga ba ko ba ko sëñ Fallu wax ca booba ca booba nee na ba ko sëñ Fallu wax ca booba ay rajo ak télé amu fi booba ay rajo ak amu fi ak i te ñëpp ngi ko doon jëfandikoo xanaa léegi déegee moo bari rek waaye jamono yoo xam ni jërëjëf eh? jërëjëf loolu di mbir eh? ak sa ma la ciy wax man bàyyi sëñ sekkum sëñ son bi mooy sans bàyyi keroog ba mu wàccee ba ndeyam wàccee ab liggéey hmm. ñu dem waxi ko soxna Aminta Bousso hmm. moo ne nañ ko yóbbu ca barabu sëñ Issa hmm. ñu yóbbu ko fa mu jóg jël kaalaam teg ci boppam dikk moo ko doon taxaw bi mu dikkee fekk fi mu ko fi ñu ko teg dana amante Diop ngay baax da xam ne yàlla la gën a baax. Mm-hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw. di jiital ci nuyoo boobu ak ñaan yi Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi yàlla may ko wér may ko kattan ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba yëpp mu liggéey ko. di nuyu Serigne si di naar jën na di jël mboolem nuyoo. Euh, njabootuk Cheikh Issa Diène mu tegal ñu ko ci loxo Serigne Abdou Latif mi nga xam ne mooy mooy kilifa gi eh, suñu tànk fii nag mooy tànki wëllëre wëllëre woo xam ne dafay wëllëre wu yàgg ndax wëllëre ki nga xam ne moo la ko nasal daanaka booy jëf moom ngay jëfal booy wax moom ngay waxal ndax suñu wëllëre ak seen Sidi mën nañoo wax ni ki ko nas mooy Cheikh Sidi Moukhtar moo ñu doon jël di ñu yebal ci moom ba yàlla dogal mu wëllërante gi juddu ci mu taxawal bisu bis bisu waajuram bii nga xam ne teew nañ ci lu ëpp fukki at teewal ci seex Cheikh Sidi Moukhtar ba nëga ni saa bu xewee mu ñëw teew ci la ko gën a dolli itam lépp loo xam ne yëngu na ci guy mbind wala mu yëngu ci noonu boo xoo boo fa xoolee sëriñ Sidi rek di nga ko gis fu ñu dëkk bu ñu nekk itam muy njogomaay fekk nañu fa muy Mbàkke Kajoor fu ñu nekk fekk nañu fa kon nag lépp loo nga xam ne dafa yëngu ci moom loola suñu mbir yu bopp lañu koy def te wëllëre réew itam bu ci gën a dëgër mooy nit ñu war a ànd ba pare waaju baax boole leen mooy ñun suñu ànd war na waaye nag sëñ Sidi Muxtaar moo ñu boole te mu jàpp ko ma jàpp ko ndax dama koy faral di wax toujours ni am na ñoo xam ne doon nañu dem ci ñoom du ñëw ci ñoom sëriñ bi boole noog ñoom waaye fi mu nekk nii buñ nu woo duñ leen wujji moom mii nag balaa mu nuy woo danañu ko wujji te loolu lépp jikko mooy la nga xam ne moo ko waral ndax damay faral di ko wax du ma dañ di ko wax sallallahu alayhi wa sallam li tedd yëpp taggam bi gën a siiw mooy jikko moom mii nag jikkoom ji mën na cee ànd ak ku ne ndax boo jàpp sa njàmbur nangoo liggéey te li la say wajur bàyyeel lii ku ko def jotewoo kenn dara te bu ñëpp defoon ne loolu itam mu jag mbir moom ku mu ñëw ci sab loxo boo ko yëkkul yow yaa ko wàññi te fii nu toog rek ku fi ñëwoon daaw jéeg ñëw fi daaw ñëw fi ren ji di nga xam yokku na wala yokkuwul te lii euh, mën naa wax ne warteef la woo xam ne wu mu def la waaye la mu liggéey te liggéey ko ci toolu sëñ Touba bi te boo demoon ci toolu sëñ Touba ba nga xam ne dañ ne sëñ diwa liggéey fee sëñ diwa liggéey fa sëñ diwa liggéey fe la mu fa liggéey kenn mënu ko fa kon bu wëlbati ko suppi eh, eh, kër baayam mu mel nii mu mel loolu li war a fee ne ku yokkul yaa yi moom yokk na lii sëñ ji li wax léegi am na loo xam sëñ bas bu wax mënu ko wax te man mën naa ko wax ndax lii ma wax nii lu mat a wax la xam naa ne sëñ Bass moom mu waaw mm-hmm. ndaxte nit bu fekkee ni dafa ne ci biir bokkam mm-hmm. ne ci biiru njabootam mm-hmm. ne ci biir bokki taalibeem di góorgóorlu boole ko fullaak jom warees na yëkkati ko ba ñëpp dëkk ko ndax am na ñoo xam ne jàppuñu ni loola ma nga ca waaye boo ko jëfee ñu gis ñu say kilifa wax ko ñu dégg danañ xam ne lii kat lu mat ka ca nekkutoon dana xam ne lii lu mat a def la ki ci moom mii ci nekkoon itam dana xam ne lii lu mat a def ndax nit kenn ku gën a rëy eh, koo xam ne am na ku la gën a réyal sa wajur amul amul kenn koo xam ne am na ku la gën a réyal sëñ tubaa amul ndax sëñ tubaa moom lañ def muy wajur yi kon képp koo xam sa wajur dafa toog ci barab ba bàyyi koo fa ku fa ñëwut daaw fekk fa lu fa fekkutoon ku fa ñëw ren ji fekk fa lu mu fekkutoon ku fa ñëw déwén fekk fa lu mu fekkutoon xam na ne yow jëfoo jëmale ci sa ndax boo doon jëf jëmale ci sa bopp doo doo doo doo doo jëfe noonu kon nag man damay am mbégte lool wax dëgg yàlla ndax bu ma fi ñëwoon fekk fi leneen dana xaw a metti ci ndax man bu ma xasee féete féete naa waaye nag boo ñëwee bu ma ñëwee fekk fi loo xam ne wóor na ma ni eh, jëf la te bàyyiwu ma ko fi woon wala bu ma ko fi bàyyi yëgsiwul fi mu yëgsi loolu man dama ci sant yàlla ndax su duma ma ko ko nëbb kat bu ma mosaan ñëw li ma fi doon fekk neexu ma woon mm-hmm. Mm-hmm. neexu ma mm-hmm. li ma fi li ma fi daan fekk dëgg la. dara dara nekku ca. waaye nag dama bëggoon mu def la ma la ma doon ñaan ci sama xol nag yàlla defal na jëf ji mu jëf nii. yàlla xam na ko doon naa ñaan mu def ko. bëgg ko ko wax ci sama làmmiñ waaye mënu ma ko wax. ndeysaan waaye yàlla defal na ndax man bu may féete damay féete rek. waaw man man amul arrière. bu may féete damay féete. kon nag li ñu man lu ñaanal ko yàlla. mu may ko wér. mu may ko kattan. Ah, mu may mu defal ko ndimbal. te te te te defal ko mu mën a muñ. ndax fi ko yàlla yàlla teg ku fi yàlla teg itam dana muñ kon ñoo ngi koy ñoo ngi ñaan yàlla mu may ko xol muñ ndax muñ ci la lépp nekk inna allaha maha sabirin kon Euh, kaddu yi laa ne woon dinaa ko sànni la ca des nag xam naa bu sëñ bas ñëwee moom ay kaddu boppam moo koy wax bu nu ko santee ñu def ko waaye bu ko bu ko waxee it mooy noonu kon jërëjëf waaye nag lii moom ay kaddu la yoo xam ne kenn yëbaluma ko wax loowuma ko kenn yëbaluma fi itam maa fi indi saa bopp maa ko waxal sama bopp sama diggante ak seen siit alwaay الباب ومزنها دروس ملين نفضت بي أرجى الخسائد وأسف عليه سلام خير مول يمكن نسابة إلى الله تعالى وسنة إنسان ربي أبين نزعت بكونها لربي خديمه وسفى بي أمي ودار مودن نويت بمالكي سفرا بخدمة لخير الورى نعم محفى معين كتبت وكل ما رخصا وسركا وقبل السرابي الذي بدودنا كتبت وكل ما رخصا وسركا وقبل السرابي كلامي ونياتي وفعلي توجه إلى من كفاني سوء وكرم والسكاء أباني حفيظ ما له الجملة الرداء ولي قاد أحبابا كذبت وقفيس مرتي مخاطبا لمن نبوه كما أتممت سله جائعا ومن قبله خلصت يا خير من فكا كسبت وجا قلبي وكل أميت بيس الذي نما سكا مستقل أسكا وسك تسليمي بهذا مسارة ولي خطبي الأنهار كتابك ديني ووقني ومن

الأمر كله كما بك لي غاد المزيات والرجعان عليكم سلام سلام الدين بكم من الوادي الباقي الذي قلد الرقان ألو تابلا أن لا يجاريك خير من لو سروة القدود جب اللعنة والدعاء يا سيدي من أعلى حبيبا فلي ذكر خطا هداياه في بر dafa amul lu dul Serigne Issa Diène amul ku dul Serigne Bara Diène Serigne Bara Naar Diène moo ko booleeg moom muy def nag lépp loo xam ne yëkkati na ko lu jëm ci sëriñ Naar danga ca def loo man ak loo mënul di ko xelal ci sam xel di ko woo guddi di ko woo bëccëg di ko jàppale ci zahir ak ci baatin loolee nag bu yàlla dogalee bis bii amoon ab gàllankooru ci ñaari at yi weesu ndax xat-xati jamono bañ tàmbaliwaat ko ren mu diisoo ci ak yow diisoo ci ak Serigne Mountakha ngeen jàppale ko ci zahir jàppale ko ci baatin tam xam yan bii nga yanu ak diisaay bi mu diis te nga yanul ko yoonu mu wépp kenn ku ne nga bëgg maslaa ma war digganteem ak sëriñ Muntaxa nga defal ko ko ba noppi nag see soo ko jéem a def sa maslaam bopp waaye nee kër gi da nga leen ci baral ab cër wóor na ko ne it da nga koo xaasal ci sa bopp xaas joo xam ne moom xam na ko as gor nag soo ko teralee ci sa jëmm teraanga jooju bu ko waxul ba ñu àdduna bépp xam ko day mel ne la nga ko teralee xamul xamu ko nee na mu lay seereel ne fi ko teg ak li nga ko yéene ak ni nga koy jàppalee mi ngi koy seereel mbooleem adduna bépp di ko seereel waa kër Serigne Issa Diène nee na dina yëkkatiwaat kàddu yu cant yoo xam ne dala koy seereel muy cant yu dëggu ci xolam mooy ñii mu bokkal Serigne Issa Diène njabootu Serigne Issa gi la ko tàmbalee ci buntu kër Serigne Abdou Latif ba ci buntu kër ki mu di dund ci doomi Serigne Issa yi nee na mi ngi lay xamal ne bis bi amul ci benn buntu bu manqué ku ñëwalul sa bopp sab taaw nga yebal boo yebalee sab taaw ay rakkam ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak moom bis bii. kon mu ngi lay seeral ak cantam ci mbooleem buntu kër Serigne Issa yi tàmbulee ko nag ci buntu kër Serigne Abdou Latif mii maamam jaar ci Serigne Souhaïbou muy woy juróom bàyyiwut benn buntu kër. nee na ginnaaw bu santee ñooñu mu lay seeralaat cant goo xam ne ci xolam lu ko tibbiwaat nee na di ko teg ci loxol rakkam yii mu bokkal sëñ ñaar nee na ñoom day jàppe wuñ ko mag dañ koo jàppe wayjur jàppe wuñ ko mag dañ ko jàppe ab sëriñ la ko tàmbalee ci sëñ Basiru ba ci sëriñ Yuusu nee na ñoom ñëpp ñoo bokk benn pas-pas bokk jénn yéene lu mu dugg moom ñoom ñoo cay ànd dugg lu muy génn moom ñoom ñoo cay ànd dugg lépp lu mu gis defit na nga xam ne moom ñoom ñoo ko ànd nee na kon cant yooyu la bëggoon rek mu tàbbi ci sam nopp taaliba yëpp déggandoo ko bañ xam ne daal sëñ Sidi nee na moom lim jàppe boppam dallu sëñ Issa Dieng la woo xam ne mi ngi ci buntu kër sëñ Issa Dieng képp kuy liggéeyal sëñ Issa boo dikkee mën ngaa sol dàll woowu dem liggéey boo del si waatee nga summi waat dàll wi ci bunt kër sëñ Issa ndax nee nañ moom liggéeyal sëñ Issa rek mooy yéeneem ndax nee na way juram sëriñ naar daf ko waxoon na ko mbooleem lu ne ci kër gi na nga jàpp ne maa ko moom lépp lu sëñ Issa yilif na nga jàpp ne maa ko moom kon nag jàpp ne foo gis ndongal sëñ Issa wala nga gis fa kilifa ko bokk sëñ Issa teralal wormaalal dimbaleel boo ko mënee ndax lépp sa njaboota nee na nag loolee la fas yéene ànd ak ay rakam di ko doxal kon ñu may sëñ Modou Mamoun Bousso imam waaye cant yii la ma sëñ siid ne woon lu mu xat-xat bala maa jël kaddu bu sëriñ Bassirou ñëwee na nga ko ko seereel mu xam ne daal sama cant tàmbalee sëñ Mountakha jaar ci jëmmam dem ci njabootu sëñ Abdou sëñ Issa Diène gépp mi ngi sant rakkam yi mbokkal baay yëpp góor nag ak jigéen kenn desu ci di sant taalibe yi. nuyu bokk taalibe yi fi bokk taalibe yëpp. teg nuyoo bi nag ci loxol Serigne Sidi Naar Jenn. nee na nuyoo bi nag mi koy ci loxol Serigne Sidi Jenn. mi nga xam ne moo kilifa jataay bii. mooy kilifa ak mboolem rakkam yi fi ay waajuram yi ci dëkk bi. nee na ba ci waajuram yi Latif mi kilifa bi ba ci sëñ Abdou Latif mi nga xam ne mooy kilifa gi. di nuyu sëñ Modou Mamoun Bousso. nee mooy ilimaani jumaa ji. mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko. ñu ngi siyaare sëñ Sidi bu baax. kon nee na ñu ngi siyaare sëñ Sidi bu baax. ak mboolem ñi fi teew ñëpp. ñëpp. ci bis bu tedd bii. ci bis bu tedd bii. muy defal waajuram. muy defal waajuram. nga xam ne. nga xam ne. ku ko xam ku ne. koo xam ku ne. ci njàmbaar nga ko xam. ci am njàmbaar nga ak ci liggéeyal Serigne Touba. ba laq ay ngërëmam. ba laq ay ngërëmam. ngërëm waa kër Serigne Touba yi. ba dellu ca waajuram bu tedd wa. ba delluwaat nag ca waajuram bu tedd wa. ak maam ju ca maam ju tedd yàlla suñu borom doole ay leeram. yàlla yàlla doole ay leeram. te taas ci barkeem. te taas suñu ci barkeem. danaa ci dellusiwaat. nee na dana ci dellusiwaat. ndax euh, penc mi ku fi ñëw. ndax nee na penc mi fi ñëw. sa xel day dem ci diggante Serigne Touba ak Cheikh Issa Dieng. sam xel day daal di dem ci diggante Serigne Touba ak sunu maam Serigne Issa Dieng. ndax Cheikh Issa. ndax Cheikh Issa. dafa am tawféex lool ci Serigne Touba. nee na daa am tawféex lool ci Serigne Touba. ñi ko xam ñëpp wax nañ ne. ñi ko xam ñëpp. maase nañ wax ne. Serigne bi mayoon na ko lépp ci boppam. Serigne bi mayoon na ko lépp ci boppam. mës ta gis merum Serigne bi. moom Serigne Issa day mës ta gis merum Serigne Touba. Sëriñ Tuubaa da koo bëgg lool. Sëriñ Tuubaa da ko bëgg laaj rek laaj na ko. bëgg laaj rek laaj na ko. wóoru ci taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp. wuutu nag taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ci loolu. laxasaay woon itam. laxasaay woon it. liggéeyal Sëriñ Tuubaa. lépp lu gis. lépp lu gis. yaakaar bëggu sëriñ bi. yaakaar ne lii kat bëggu sëriñ Tuubaa mu dàkk ko. mu dàkk loola. andi sëriñ bi. andi ko sëriñ Tuubaa. ba lu sëriñ bi xalaat rek. ba lu sëriñ bi xalaat nag. bala bala bala booy xalaat rek Cheikh Issa andi na ko ci kër bi bala koo yónnee di ko wut rek sëriñ Issa andi na ko bokk na ci la fa féete féetewoon sëriñ bi. bokk na ci fa mu féetewoon sëriñ bi. te sëriñ Tuubaa mayoon ko ko. te sëriñ Tuubaa mayoon ko ko. joxoon ko ci ndigal. joxoon ko ci kër gi moo ko daa indi. mooy dundu bi nga xam ne moom la waa kër gi daal dundee. moom la sëriñ Issa daal indi. moo ko daa indi. moo ko daa indi. kon loolu képp. kon ko sëkk. doyoon ko sëkk. ab liggéey ci sëriñ bi. ab ab liggéey ci sëriñ bi. ndax xam ngeen ne sëriñ bi. bëggutoon dara. bëggutoon dara. soxlawutoon du agsi ci ci sëriñ bi. kon liy jëm ci biir kër gi. kon luy jëm ci biir kër gi. kum ko jagleel. loolu ñëpp dégg nañ euh, bi di dox ci biir seng biir kees njaareem bi. ci biir kon képp ku ci bokk. kon képp ku bokk ci Issa. am nga tawfeex. am nga tawfeex ndax faggul na la. ndax faggul na la. ba ne ba tey jii. ba ñëw ci jataay bi te ñëw ci jataay bii. xam na lam liggéeyaloon Serigne Touba. xam ne moom Serigne Issa lam liggéeyaloon Serigne Touba. mi ngi dolli ko bu baax. mi ko bu baax. ndax ku gis Pastef bi. ndax ku gis Pastef bi. ak ni ngeen dikkee. ak ni ngeen dikkee. dana xam ne mbirum Serigne bi. dana xam ne mbirum Serigne bi. ca kanam rek lay jëm. ca kanam rek lay jëm. kon nag Cheikh Issa moom may wax. kon Cheikh Issa moom jumaay njaareem. jumaay njaareem. Serigne Touba jël ko teg ko ci loxoom. Serigne Touba jël ko teg ko ci loxoom. te jumaay Touba kat. te jumaay Touba kat. li muy màgg màgg. li muy màgg màgg. moo gënoon ñor sëñ bi rek. moo waaye jumaay njaareem la mu fekke la suñu borom dogal sëriñ bi fekke ko. ba noppi ne ko sama borom moo ma digal ma teg ko ci sa loxo. ba xam ngeen baat ya Cheikh Issa waxoon. xam ngeen baat ya Cheikh Issa waxoon. ci jaayante ga. te jaayante ga. ak nam la ko ci suñu borom defal. ak nam la ko ci suñu borom defal. la ko ci Serigne Touba defal. la ko ci Serigne Touba defal kon yéen. kon yéen. bu ngeen jëfaatoon dara it. bu ngeen jëfaatoon dara it. lam leen jëfal. lam leen jëfal. doy nañoo defaru àddina ak àllaaxira. doy nañu defaru àddina ak àllaaxira. kon nag loolu. kon nag loolu. lépp luñ koy defal. lépp luñ koy defal. lu jëm ci moom. lu jëm ci moom. jëm ci ak njabootam. jëm ci ak njabootam. te képp koo xam diggam ak sëriñ bi. te képp koo xam diggam ak sëriñ bi. boo xamutoon kenn ci njaboot gi. boo xamutoon kenn ci njabootu sëriñ Saay. war nga faa ñëw. war nga fay ñëw. taataan fa. taataan fa. tuyaaba. tuyaaba. te xam ne sàkku sàkku ko ci fukku gën. te xam ne sàkku woo tuyaaba ci fukku gën moom nag. moom nag. yàlla koo defaloon tawféex. yàlla da koo defaloon tawféex ndax dégg naa ci lam ñu sëriñ son bi. ndax man kat dégg naa ci lam ñu sëriñ son bi. loo xam ne sax neexut a nett li ci mbooloo. loo xam ne sax neexut na tabax bu doon def ca ndànd mu ne am na tabax bu mu doon def ca ndànd sëriñ bi ne ko sëriñ bi ne ko bu àggee danaa ko seet bu àggee danaa ko seet jox ko ci ndigal jox ko ci ndigal ñaanal ko ca ñaanal ko ca far sëriñ bi ñibbi si far sëriñ bi ñibbi si tam xam ne sëriñ bi lépp lu mu wax rek dana ko def. tam xam ne moom lépp lu ko sëriñ Touba wax rek dana am. Eh, sëriñ Sow bu neen dafa sëriñ Sow bu rek. ne ci néeg ubbi fenêtre bi. ne ci ab néeg ubbi bi. ci yàgg. Eh, ak xet xeeñ ko. ak xet xeeñ ko. xet gi nga xam ne bu ko sëñ bi mos a jub moo daa agsi ci ci moom. nee muy muy settantal di mel ni ku jaaxle. nee na settantal mel na ko jaaxle. fi mu ne nii rek mu seen sëñ bi toog ci kaw lal bi. fi ne nii rek mu seen sëñ bi toog ci kaw lal bi. mu daal di wàcc su mu daal di wàcc ci te sëñ son bi nee na Cheikh Issa ko nett na. sëñ son bi kat nee na lii sëñ Issa ko nett na. te ci lam ñoom laa ko déggee. lam ñoom la ko déggee. leen cell aw leen góor. Serigne Touba wax faa moom lu bëree bëri. Serigne Touba wax faa ak sunu maam Issa lu bëree bëri. loo xam ne ay mbóot la. loo xam ne ay mbóot la. te Serigne bi wax ci Issa Sakkoor ne. te Serigne Touba wax Serigne bi wax na ci Issa Sakkoor ne. Sudurul Ahraari. Sudurul Ahraari. Xuboorul Asraari. Xuboorul Asraari. am na ci loo xam ne ay mbuur la. am na ci loo xam ne ay mbuur la. yoo xam ne kenn du ko nettali. yoo xam ne moom kenn du ko nettali. kon buñ doon waxtaanee fii ba guddi. kon buñ doon waxtaanee jagleeg sëñ Issa ci sëñ Touba fii ba guddi. fi la ñuy fanaan. fi la ñuy fanaan. te man yàlla dafa def. te man kat yàlla dafa def. li ma xam ci moom dafa bari lool li ma xam ci suñu maam Issa daa bari lool ndax waa kër Sëñ Tuubaa yi dañ ko fonkoon lool ndax waa kër Sëñ Tuubaa yi dañ ko fonkoon lool Sëñ Abdou Khadir daa nettali ci moom lu bëree bëri Sëñ Abdou Khadir da daa nettali ci moom lu bëree bëri lii may bëgg a nettali ci moom la jógee lii may bëgg a nettali ci Sëñ Abdou Khadir la jógee nee na eh, Cheikh Issa dafa laaj sëriñ bi na ko nee na Cheikh Issa dafa laaj sëriñ bi na ko ne ko Mbàkke de dañoo amul jaaxle na ko ñun de Mbàkke dañoo amul jaaxle ndax ñàkk gor ndax ñàkk gor li ci lislaam wax li ci lislaam wax gor soo xam ne da lay liggéeyal. gor soo xam ne da liggéeyal. te fayoo ko. te fayoo ko. li ci lislaam wax daal. li ci lislaam wax daal. Eh, diis na lool. diis na lool. ba tee maa nelaw. ba tee ma nag lu ci war. taxaw ma nag lu ci war. ak nu ñuy def ñoom. ak bi na ko Isa. sëñ Tuubaa na ko Isa. lii nga laaj de. lii nga laaj war na la yaa képp ku mel ne yow. war na la yaa képp ku mel ne yow. waaye sama mbir mii de. waaye sama mbir mii xamal na ma ne. suñu borom xamal na ma ne. haza atauna. haza atauna. fam nun. fam nun. awam sig bi xëy awam bi kon loola. kon loola. yóbbaale na ci ñëpp. yóbbaale na ci ñëpp. ndax moom sëñ bi da ko mayoon. ndax moom sëriñ bi da koo mayoon. lu ne rek mën na koo laaj. lu nekk mën na koo laaj bi. ko tontu ko ci. te bi tontu ko bëgg bëggoon ba. sëriñ bi da koo bëggoon ba. fu mu ko gisee rek xol bi day sedd. fu mu gisee sëñ Issa rek xol ba day daal di sedd. loolu yàllaa ko def seen diggante. loolu yàllaa ko ñoom ñaar. doomam yu tedd ya. doomam yu tedd ya. wuutu ko ca loola. wuutu ko ca loola. sëñ Baara Jenn. sëñ Baara Jenn. xam ñëpp xam nañ ne. ñëpp xam nañ ne. ñaari cër la am. ñaari cër la amoon. cërub doon doomi Cheikh Issa. cërub doon doomi Cheikh Issa. wëlbatu ko liggéeyalaat Sëriñ Tuubaa ba mu gërëmaat ko. wëlbatu ko liggéeyalaat Sëriñ Tuubaa ba mu gërëm ko. loolu dafa feeñ ci mbiram. loolu daa feeñ ci mbirum sëñ Baara. kon loolu. mooy li leen topp. mooy li leen topp. sëñ naar mii tam sëñ naar nag mii. xam ngeen pëstéefam. xam ngeen pëstéefam. ci ci waa kër Sëriñ am na ci loo xam ne naa ko. am na ci loo xam ne fekke naa ko. ndax mbaar mii ngeen doon wax. ndax mbaar mii ñu doon wax. ci sëñ Buxaari. ci yàlla def na. yàlla bi mu doonee Serigne Touba. bi mu doonee Serigne Touba. ñu bari mu liggéeyloo leen ci biir kër yu mag yi. ñu baree bari mu liggéeyloo leen ci biir kër yu mag yi. ci kër Cheikh si. ci kër Cheikh si. waaye moom rek moo ci am tawféex ab liggéeyam am tawféex ci kanam sëñ Buxaari. ba sëñ Buxaari daloo ko. ba sëñ Buxaari daloo ko. ba mu làq ci moom. ba mu làq ci moom. tabax ba daanaka guddi ak bëccëg lañ daal liggéey. tabax ba boo daanaka guddi ak bëccëg ngeen daal liggéey. loolu ci sama kanam la. loolu ci kanamam la. kenn nettali ko. kenn ko. mbaar moom itam. mbaar moom itam. ba nëgëri ma ngi ci kër ga. ba nëgëri ma ngi ci kër ga. fa lañ mujj siyaare Sëñ Buxaari ci alxames ji. ca mbaar moom lañ mujj siyaare Sëñ Buxaari ci alxames ji. alxames ci ngoon. alxames ci ngoon kenn gisaatu ko. kenn gisaatu ko. kon loolu doy na ko sëkk taw. kon loolu doy na sëkk sëñ naa taw feex. Eh, Serigne Saliou Mbacke. Serigne Saliou Mbacke. daana seere ne. daana seere ne. ñett ñii de. ñett ñii de. koo xam ne ameeloon naa la bor. koo xam ne ameeloon naa la bor. boo leen séenee ñu ñëw. boo leen séenee ñu ñëw ci man xel war naa dal. seen xel war naa ne cell. na ñëpp ne cell. bàyyi ko. ne cell. ak sëñ Amdi Khady Fall. ak sëñ Amdi Khady Fall. ak ak sëñ Bassirou Sarr. kon loolu doon na doon na kon loolu doy na sëkk seere. siyaare si na ko ba tey. siyaare si na ko ba tey. mu agsi mu ne ko xanaa kër ga bàyyi woo fa dara. mu ne ko xanaa sëñ naa kër ga bàyyi woo fa dara. ndax ndax yëf yi jege rek. ndax yëf jege rek. ak yónneent ak yónneent kon moom kon moom. bu ko sëñ Baaru jurutoon it. bu ko sëñ Baaru jurutoon it. li mu liggéey sëñ Tuubaa li mu liggéeyal sëñ Tuubaa doy na ko sëkk doy na ko sëkk waaye nag waaye nag looloo andi lii loolu moo andi lii wa jaalaha kalimatan wa jaalaha kalimatan baqiyatan baqiyatan fi aqlihi fi aqlihi moo li andi lii ba tey mooy li andi ba tey rek kon sëñ Sidi kon sëñ Sidi ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la gërëm di la ñaanal itam di la ci barke Serigne Touba. ci yàlla suñu borom dëgëral la. yàlla suñu borom dëgëral la. kattanal la. kattanal la. ba yan bi. ba yan bi. fa nga ko bëgg yóbbu ko yóbbu ko fa. ndax la la sa waajur daa def. ndax la sa waajur daan def. sëñ Baara daa ko def. sëñ Baara daan ko def. maam Cheikh Issa daa ko def. maam Cheikh Issa daan ko def. ya ci yoon woo képp nga tege. ci yoon woo képp nga tege. te loolu du samay wax. te loolu du samay wax. seere ñi fi nekkal sëñ Touba la. seere sëñ Touba la. Cheikh Sidi Moukhtar. Cheikh Sidi Moukhtar. seere na ko ba tàyyi. seere na ko ba tàyyi. di yéem pëstéef. di yéem sa pëstéef. ci addi yi. ci addi yi. ndax kenn mënu la ci yoon wi. ndax kenn nag mënu ci yoon wi. lu mu la digal rek. lu mu la digal rek. da ko def na kawe jox da nga ko def na kawe war a liggéey bi mu la santoon. loolaa war a liggéey bi mu la santoon. ca Daaru Manaan ca Daaru Manaan sa a tax mu jox la sa pësteef moo waaye nag waaye nag siggal nga ko ci siggal nga ko siggal nga ci sa siggal siggal nga ko ci siggal nga sa waajur siggal nga ci sëñ naar siggal nga ci sëñ baara jann siggal nga ci sëñ baara jann siggal na ma ne de wóor na ma ne de fañ tëdd fañ tëdd seen xol sedd na ci yow xol sedd na ci yow kon nag liñ lay ñaanal kon liñ lay ñaanal liñ lay ñaanal bul amum ndox mukk yàlla boo amul ndox yàlla nga àgg fa nga jëm yàlla nga àgg fa nga jëm ndax ndax ñi topp sa ginnaaw de ndax kat ñi topp sa ginnaaw li may wax xam nañu dëgg la li may wax xam nañu ñoom dëgg la mooy wóor na leen ne mooy wóor na leen ne lépp luñ la jox ci Sëñ Tuubaa la jëm lépp luñ la jox yow ci Sëñ Tuubaa la jëm loolu nag loolu nag yombatul fii jamono toll yombatul fii jamono toll ndax adduna dafa fëkk ñëpp ndax adduna dafa fëkk ñëpp seetaane jaxase xel yëpp seetaane jaxase xel yëpp kenn ku ne. kenn ku ñu gis gistoo la sa bopp. ñu gis loo la sa alal yi taq ci xol yi. alal yi taq ci xol moo tax sëriñ bi daa wax ne. moo tax sëriñ bi daa wax sax Cheikh Issa mi la ko waxoon. nee na loolu li muy ko wax sax Cheikh Issa mi la ne ko ñàkk dongo yi. ne ko fere yi ne leen. waxal fere yi ne leen. xool bu baax fu ñu koy def. nañ xool bu baax fu ñu koy def. ndax. nit fu fu alalam jëm. ndax nit kat fu alalam jëm. ab xolam topp ab xolam da koy topp. kon nag képp koo xam ne. kon nag képp koo xam ne. yaa ngi woon nii ci Serigne Touba. yaa ngi woon nii ci Serigne Touba. ñu lay cee wuy si. ñu lay cee wuy si. sa alal daa jëm foofu. sa alal daa jëm Serigne Touba. kon nag kon nag lii nga am. kon nag lii nga am. loolaa la ko may. loolaa la ko may. kon nag yal na la yàlla gën a dimbali. kon yal na la yàlla gën a dimbali. ba mu yàgg. ba mu yàgg loolu. nga yàgg koo ànd ak sarak yi. nga ànd ko sarak yi. fa nga ko bëgg a yóbbu rek. ba fa nga ko bëgg a yóbbu rek. nga àgg nga àggale ko. nga àggale ko. ci barke Sëriñ Tuubaa. ci barke Sëriñ Tuubaa. ñu jeexale foofu kaddu yi. ñu jeexale foofu kaddu yi. di ñaan ñu teewee ko nag yi déwén. di ñaan ñu teewee ko nag yi déwén. ak jàmm. ak jàmm. te lépp luy lu fi yitte ju fi waay indaale rek. te lépp yitte ju fi waay indaale rek. yàlla ko yàlla saafara. yàlla ko yàlla saafara. jàngoro ji fooy indaale. jàngoro ji fooy indaale. yàlla ko yàlla saafara. yàlla ko yàlla saafara. ndax bis bi attan na ko. ndax bis bi moom attan na ko. li tax mu attan ko it. li tax mu attan ko it. ki ñu koy defal. ki ñu koy defal. léppam da koo jeexal Serigne Touba. léppam da koo jeexal ci Serigne Touba. ba ba laq ngërëmam. ba laq ngërëmam. yow mi ku koy wooteel itam. yow mi ku koy wooteel. laq ngërëmu Serigne Touba. laq ngërëmu Serigne Touba. ndax ñaar ñi fi nekkal Serigne Touba. ndax ñaar ñi fi nekkal Serigne Touba. di Cheikh Sidi Mokhtar. di Cheikh Sidi Mokhtar. di Cheikh Mouhamadou mu di Cheikh Mouhamadou Mountakha. Cheikh Mouhamadou Mountakha seere na ko ay yoon. Cheikh ba daaw. ba daaw. bi mu lay jox pàkk yooyu. bi mu lay jox pàkk yooyu. dafa wax ne suñ siit de moom. daa wax ne suñ siit de moom. kenn xamul noo koy def pëstéefam. kenn xamul noo ndax pëstéefam. ba ba ci tabaski yi. ba la nga fay indi. la fay indi. bari lool. bari lool. te te te ràññu ko. dañuy may sëriñ bi rek mu ñaan. ñaanal fa sëñ bu kenn jóg. su ko defee ñun ñu àggale waxtaan kàddu cant yi. sëriñ bi yal na yàlla guddal saw fan. ndax lii ngay wax rakkat yi toog di ko seere. taalibe yi ko fekke woon di ko dégg. xam nañ ne waxoo ko teg ko ci sa bànneex waxoo ko it ngir bëgg lu ko neex ndax li nga wax ci sëriñ Saliou te wax na képp bisibi lu ko waaye teg attan na ko sëriñ Saliou moo waxoon sëñ naar loo dogu yàlla fekk la ca loolu kon nag yaakaar naa ne boo ko waxaatee tey jii danañ xam ne ci làmmiñu sëñ Tuubaa la ko woon jërëjëf mën ngaa ñaan nee na mën ngaa toog waa nee na sëñ Sidi nee na ko ñëpp dimbale ñaanal ko mu yàgg fi amiin Cheikh soññiwaat sunu bopp te xam li nu doon ndax Sëriñ Tuubaa mi nu bokk yaakaar nun ñëpp moo wax ni ku amul kilifa ku ne seytaane mooy doon sa kilifa kon de ku dem ba xam ne wóor na ne am nga kilifa war ngaa sant sunu boroom jëmm ji toog nag kàddu gi may jëkk a wax ci moom waajuram wu tedd wa moo ma ko waxan kon day mel ni loolu dafa màndargaal bis bii ndax toog nañ di waxtaan ci mbirum taalube maa moom rek ak yàlla mu xamal ma baa ngi ci moom mu ni ma siidi nii de dara naqariwu ci moom loolu de sëñ naar jenn ma ko wax waaye loolu nag lii màndargaal na ko waaye la mu njëkk a def ci doxeenu mag ña ndax ku ne xam ne dafa am loolu li sëñ bi wax léegi ak jagle la ndax Cheikh Issa bu fi sëñ Touba nekk mag ñëpp nekk fi la ko sëñ bi ràññeelal boppam jox ko cër boo xay nii bokk ko kenn te loolu ñëpp ko xam ku ko nangu ak ko nangu loolu yàllaa ko dawal ci moom. waaye loolee ba mu fi bàyyi ko Cheikh Ahmadou Lamine jenn taxaw taxawaayam di ci dox jéego yoo xay nii yoonu murit bépp ko xam ñëpp ko naw ba mu jaaxal ñu bari mu bàyyi koo fi sëñ naar Diène taxaw. ba ci xaari tabaski yi ñuy tudd tey Cheikh Mbad Lamin Jaan ci téeméeri xar la ko bàyyi woon sëñ naar ma ngi ko bàyyi woon ci ñaari téeméeri xar moom mii at mi nu génn rek ma ngi ko yóbbu ci ñaari téeméeri xar ak juróom benn fukk ba mu fi bàyyi ko ba fii mu ne nag lim dafa am kàddu yu mu waxan bis ba sëñ wàcceeb liggéey loolu daa mat a leeralaat fii man mii la woo ni ma wool ma sama rak yëpp ñu bokk toog ma wax ñoom ba ñu ñëwee da leen a xamal ni sëñ naar de képp koo xam ne ci doomam nga wala rakkam wala taalubeem yoon wa mu jaaram boo ko mokkalu waratoo ko war nga koo meen ba waratoonoo laaj kenn yoon wa yoon woowee nag maa ngi leen di seereel ni fas naa yéene du ma ko wàcc mukk loolu la sëñ siini wax bis bi ñu ñaanal sëñ naar bis bu mu wàccee liggéey kon loolu ma nga ci mu bàyyi wàccub liggéey teguñu ci mat weer barab ba mu nekk tey ku fa dem xam nga it euh, bàyyi na ko mat taxaw ko taxawaay mat sëkk ba ñëw naw ko fa tëdd ñëw ko ñëw ko taxawal mu jóge fa pàkk bee maam ca njend lagan nga xam ne dara nekkoon pàkk kese la woon mu taxawal fa kër goo xam ne gii nu kër di mel ci njenne googu nekk rek kër googu mel na mbaamu raw te loolu pësteefu boppam ak taxawaayam loolu rekk la ko defe jóge ci loolu sëriñ Touba ci boppam woo ko liggéey loo muy liggéey bii nu bàyyi ko ci Daaru Marnaan liggéey ba nag dafa am kilifa gu ma jox benn kàddu boo xam ne bii dafa mat a leeral ba tey ci mbooloon ndax kilifa ga dafa ñëw sëñ siiri ne ma àndal maa ngi moom tàmbaleel ci suuf ci kaaw bi ba ca kaw won ko lépp nu tàmbaleeg suuf ci kaaw bi ba ca kaw mu ne ma sëñ bi de liggéey bi dafa am tuuti lu ma ci yéem man ma ko ah mu ne ndax xam ngay jumaay njëriñ bi ko sëriñ Touba di jox Cheikh Issa ak nii mu mel fenn fu ñu gisee jumaay ju ñu mel wala palaa bu ñu mel bu ñu naan na mel nangam kenn gisu ko woon ñaw Cheikh Issa ak xaralam ndimbali sëñ Touba rek ci la ko taxawee ba mu mel ne mu mel ma ko loolu de dëgg mu ne ma liggéey bii nga gis nii kenn du fi ñëw ba la gisan naa ko bi def sàngam te lool it wax na dëgg ndax architecte bi defar pla bi nee na ku ko gis xamal ni liggéey bi ci fii nga ko jëkk a gisee ndax maa ko liggéey te maa ko jëkk a génn loolu ma wax mu liggéey ko ba mu mel na mu war a mel Sëriñ Tuubaa ñëwul fa boppam joxe ko cant jox ko ngërëm ak mboolem commandal mu jóge ci loolu ñëw ci kër waajuram mu tedd bii loola day mel ni Seex Naar Jeen la ñu ci kër Cheikh Mate Lamine Diène ndax nii mu def kër sëñ laa Lamine jenn ñëpp teg nañ seen bët kon Diène boo ñëwee taxawu kër sëñ man sëñ naar Diène gi jëf ci jëf jii nga fi jëf ñëpp teg seen i loxo ñëpp teg seen bët nun ñii nag am na lu nu war ndax li nu war mooy si waajur dafa waxan ni nit ku diggee moom ab ànd bu jógee da ngay jóg lu dul loolu bu jógee nga des dafa mel ni da ngeen tàqali ko yow nag wóor na may jóg nga tegu nga ci yoon bi te yàlla boo ko wàcc yàlla boo fa kastalu kon nag nun ñi ànd ak yow sunu pësteef mooy loonu digal nu def ko te doonu seen mukk ci loonu tere te yàlla na nga nu dimbali ci loolu noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm di ñaan ci kàttanam sëñ naar jenn yalla bu la dara dara dara dog yàlla bu la dara gàllankoor sunu xel sedd na guy ndax nun de kenn ëpp noonu tiitaange ndax danoo jigéen sëñ bi lool mu may na lu bari ci boppam ndax man sama jëmmi bopp ji damaa waxam ni kenn du ma sañ sëñ naar wàcc na liggéey man dama war jàppoon ni maa jëkk jiitu sëñ naar ja ndax kenn du ma ni sëñ naar wàcc na liggéey waaye ba mu ma woo ni ma mbir xew na mbir xew na ma ne ko fu mu xewee mu ne ma sëñ naar waaye sama xeel dem ci ne moom mii ma ne mbir xew na sañ na ma ko wax looloo mayut dal kon jenn yal na fan yu gudd ak mboolem ku la ko yéene yal na kàttan yokk ak ku la ko yéene noo ngi ñaan ci kattan sëñ Touba lépp lu yéene ci liggéey sëñ naar jenn ndax woor nañu siggal nga sa waajur wa siggal nga sa bopp siggal nga mboolem say rak siggal nga mboolem ku say soppe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbooloo mi sëriñ bi mu ne aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa qadimihi wa sallama tasliman assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki taalibe yi fi teew yëpp ak bokki julit yëpp nee na mi ngi leen di nuyu te di leen jottali ak cant akum ngërëm ci seenu teewaay ak seen góorgóorlu ak seen pëstéef ci bis bii nga xam ni dañu cee woon nu bokk ko muy jëm muy bisu sëriñ bi kenn ku ne la nga man ak la nga mënul def nga ko ci kenn ku ne fa sa pëstéef toll jëfe nga ko ci kon nag nee na sant na leen bu baax nee na mi ngi sant rakkam yi nga xam ni ñoom la ko bokkal tàmbalee ko ci Serigne Bassirou ak rakkam yëpp nee na mi ngi sant bokkam yu baax yii fi teew Serigne Soxaay bu jenn moom sëñ Mbàkke Marema mi ngi nii ci jataay bi ak Serigne Sidi ak i rakkam Serigne Naar Jennit ñëwoon na fi ci suba Bassirou Diagne rakki Serigne Souhaïbou. Serigne Bassirou Diagne rakki Serigne Souhaïbou. ñoom ñëpp ñu ngi fi teew. ñoom ñëpp ñu ngi fi teew. waaye ku ma tuddul it. waaye nee na ku ma tuddul it. xel moo mel noonu rek. waaye sant naa leen bu baax. waaye na ngeen xam ne sant nañ ñëpp bu baax a naa ni bis bi. ngeen yëg na ni bis bi. ni ma ñoree. ni mu ko ñoree. noonu la leen ñoree. noonu ñii la ñoree ñëpp. moo tax ngeen ñëw siyaar si ko. ñu yëgal leen waxtaan wi ngeen dikk teew. nee na sant na leen bu baax. taalibe yi nag nee na mi ngi leen di sant ndax bis bii dara manqué wu fi lépp a fi des te li fi dikk lépp taalibe yi ñoo ko fi des kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax te it di leen gërëm bu baax di ñaan lépp loo xam ne rek taalibe yi jëf nañ ko fi yal na yàlla yokk ko te fulal leen ko. mu jariñ leen àddina ak àllaaxira sant na leen bu baax kilifa yi nga xam ne moom lañ lim léegi ñu teew fi nee na jëru mu ciy delluwaat ndax xaw naa bari mënta tudd ñëpp waaye nee na xanaa mu tudd kilifa gu mag gi rek muy Cheikh Mouhamadul Mountakha léegi nii bi muy jënd ci kër gi la dajeeg Cheikh Abdou Latif Lappe mu yónni ko jox ko ay teraanga nee na lu lii de mënu koo ñàkk a wax Cheikh Abdou Latif Diène mi jiite kër Sëriñ Sarr Serigne Cheikh Diène doomam ñëw na fi sunu waaju bi sunu kilifa Cheikh Souhaïbou Diène sëñ Sidi doomam ñëw na fi démb ànd ak Serigne Souhaïbou mais indi fi ay teraanga loolu day wane ni ki ma koy defal. xam nañ ni ñoom ak moom ñoo ko bokk kon nee na sant nañ ñëpp nee na bis bi nag ni mu ko waxee rek li fi ndikk lépp taalibe yi ñoo ko fi def nee na téléphone na état état yi defu ci dara li fi nekk lépp taalibe yi ñoo ko def tey dara jeexu fi kon nee na sant na leen bu baax sëriñ bi nag moom mbiram daanaka ni nee na mënut a waxtaan lépp lépp xanaa ñu tënk ci ay mbir rek xam na ni daal borom bu fajub aajo la yàlla sunu borom jagleel na ko ko. nee na ku ko xam ci moom. ku ko xam ci moom. loolu lii moo am. ku ko xamul it loolu moo am. ndax moom boo ko miinee. yàgg ak moom ay jotaay. da ngay ñëw si moom sax. am lool na ma wax. am na ma wax. mu tontu la cim xelam. wax la bëgg wax. wax la ca la nga bëggoon a wax. kon nag loolu. ak jagle bu rëy la. noonu ko Serigne Fallou Galas si la waxee léegi. keroog bi ko Serigne Saliou Mbacke di wax loolu. nee na moom mii ak moom noo ànd. ak Modou Kane. ak ñeneen. jamonoy ineer. jamonoy ineer. ñu toog si Serigne Saliou. Wilane ci joowaan gi. te mu tëdd ci joowaan bi ñu ñëwee nuyoo. nee na bi ñu ñëwee nuyoo. mu ni Serigne Naar. man de sibbiru si ñetti fan yii. man de sibbiru si ñetti fan yii. damaa bi ni ko. Serigne bi si na la bàyyi. na la bàyyi. mu ni ko. mu ni ko. yow boo ko waxee rek moom. yow de boo ko waxee rek yow Serigne Naar moom. Serigne Naar. Serigne lépp loo wax. yow lépp loo wax. te dogu ca. yàlla sunu borom dana ko def. yàlla te loolu war a nekk war a nekk la. ndax Serigne Naar wax na ko moom mii ni ko. bi mu nekkee Madina Mbooba. bi mu nekkee Madina Mbooba. di liggéeyal Serigne Fallou. di liggéeyal Serigne Fallou. maase ak Serigne Modou Boussa Dieng. maase na jàpp. Serigne Fallou daan jàpp. dëkk nu jàppit ma. dëkk ni ku jàppit ma. xay séddale leen ko. séddale leen ko. jox lii Serigne Modou. jox lii Serigne Modou Boussa. jox lii Serigne Naar. jox lii Serigne Naar. ni barkeeloo leen ko. ni leen barkeeloo leen ko. ñoom la boole benn lal bu ñu tëdd. ñaar la boole woon benn lal bu ñu daan tëdd. kon dafa mel ni. téere yi wax li téere yi wax wala dul bi wala dul sulbi nee na moom daa mel ni moom sëriñ naar wala dul xalbi la ci doomu sëriñ ci sëñ Fallu lu bokk nag eh, ki ko ki ko meññ ki ko meññ di borom ngërëm borom ngërëm di doomi borom ngërëm moom it muy borom ngërëm nee na kon day bañ a guddal ndax jataay bi xaw naa yàgg mi ngi sant ñëpp bu baax xanaa di ñu doolee dénk rek nu dolli koo góorgóorlu nee na mi ngi fàttali boppam te di ñu fàttali xéewal yi gën a rëy mooy yàlla sunu borom bi bind na def la nga di jullit waaye nag rawatina mu def la ngay daal di def Serigne Touba waaye nag rawatina Cheikh Issa Diène di sa sa Serigne Touba ndax moom tawféex juuju sëriñ Mouhamadou Bachir wax léegi ku amoon tawféex ci sëriñ bi la day borom gëneel itam nee na biig rek waxtaan bi mu defoon ak sëriñ Fallou Galas ñu ngi koy jàllale ci rajo bi waaye dama ko tënkoon ba nga xaay waaye na sax dina leer ci bopp yu bëree bëri xëy booba da ci doon leeral rek ak njëbalam ci sëriñ bi jébbalu si. moom Cheikh Issa bi muy jébbalu si. booba maam Birane Jenn. booba maam Birane Jenn. muy maam Ibrahima Jenn. muy waajuram. muy waajuram. samp na kër. waaye nag. mag ñi ni ñu meloon. ci bëgg xam-xam. daa jàng ba mu yàgg. ba jeexal téere yi daanaka ni. am benn téere boo xam ni. am benn téere boo xam ni. amoon na ci lu ko lënt. ñu tegtal ko wenn wàll yi. ñu tegtal ko wenn wàll yi. wu ñuy wax Ahmadou Racine Niang boo demee soowu jant fi mu ne boo demee soowu jant fi mu ne di nga dem siyaare barabam ba mu dem fa doon fa jàng téere boobee fekk na booba mi ngi woon ak wirdu xaajir eh, Ahmadou Racine Niang yor wirdu tiijaan moom mu gis nit ñu bari doon fa ñëw di jël wirdu tiijaan bi mu xemmem ko bi mu ko ko laajee mu gàntu mu dellu ko ko laajaat mu gàntu mu dellu ko ko laajaat mu gàntu ba muy ñetti yoon ba téere ba jeexee nag Ahmadou Racine ñaan ni ko Ahmadou Racine ñaan ni ko Mor Birane Mor Birane li la fi indi woon li la fi indi woon jeexal nga ko jeexal nga ko nan dem ma gunge la nga ñibbi nan dem ma gunge la nga ñibbi defaral say bagage defaral say bagage ba ca ginnaaw kër gi nee na ba ñu demee ba ca gannaaw kër ga mu ni ko taxawal mu taxaw mu taxaw Ibrahima Dieng mun ko Ibrahima Dieng jamono bii ma taxaw di wax ak yow jamono jii ma taxaw di wax ak yow soxna sa nga bàyyi fa sa kër soxna sa nga bàyyi ci sa kër dafa toll diggante dafa toll ab diggante la mu amee nag góor la la mu amee nag góor la su feeñee jamono su feeñee na nga ko tuddee nabiyulaahi Isa na nga ko tuddee nabiyulaahi Isa wala yu kamal lay doon am na sëriñ buy feeñ ci penku am na sëriñ buy feeñ ci penku kookee moo yor ab cëram bu la tàggoo ne maa ngi cay dem. bis bu la tàggoo ni la maa nga cay dem. na ko bàyyi. taalibe yam fay dajeel. taalibe fay dajeel. kenn du ko ci gëm. kenn du ko ci gëm. wax na ko nag. wax na ko nag. ngant li tax. ngant li tax. jox ko wérdu tiyaan jox ko wérdu tiyaan bi. waaye loolu yëpp dañu mën a wax ci rajo. léegi nag. léegi nag. mu ne ko bu dee ganee jamono. mu ne ko bu ganee jamono. bu demee mata dal alxuraan. bu demee ba mata dal alxuraan. na nga ko jàngal ba mu fere ji. na nga ko jàngal ba mu fere ji. bu feree ji. bu feree nga joxe ko. ba mu ko jàngalee ba mu fëri ji mu yóbbu ko xandiraan jox ko ku ñuy wax Omar Ummi Diop moo ko jàngal alxuraan ba mu mokkal ba ñibbisi ba mu jàngee xam-xam ba dajal dem ci sëñ Masamba Diop Sam di fa dolli koy xam-xam ndax moo ko mag te moo ko jëkk jébbalu bi mu ñibbisee nag genn guddi mu jël ab jukkeem mu jël ab jukkeem di jàng booba nag courant amul xëy na matt ngay taal wala lampe patafoor bi mu yoree jukki bi jàng ba mu agsee ci sóoratul xaj ji aaye faka ayin min xaryatin ak nax naxaa ba ca waxasil masiij nee na lu mel ni nga mintu dab ko nee na lu mel ni nga mintu dab ko nee na moom seen saa mu jël jukki ba daal ba ci dënnam nelawi gam-gam def nelawi gam-gam waaye nelawi gam-gam waaye nelawi gam-gam bu say bët di laalanteet mooy nelaw yoo xam ne bu say bët di laalanteet say xef mo sab xol sab xol nelawagul nee na mu gis yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam sexal ko ween nday joram di ko nàmpal sëñ baara jenn nee na sëñ baara jenn nee na Cheikh Issa moo ko ni nee tërëti. bi ma nee tëj. ci loolu yi meloon ni gént. meew mi ngi saf saf ci gémmiñam. nee moom seen saa mu gis leer lu tàmbalee ci ewu doon. xotti ba jàkki ba jàkki Serigne Touba ci Touba. xotti ko ba jàkkaarloo Serigne Touba fii ñu Touba. nee mu daal di lem ay bagages am. dikk fukki baayam ci guddi. dikk mu ne ko kooku. nee mu ne ko kooku. nee na mu ne ko mën a xiisaa. mu ne ko waaw looy dox. mu ne ko guddi na de. kat bàyyi nee na ko man kat bàyyi sëriñ bi may dégg ci Touba ci bëgg a dem jébbalu ji bëgg a dem jébbalu ji mu ne ko xanii am lakka loolu mooy ndokkale loolu ni ko boo demee ni ko boo demee nuyu ma sa sëriñ boobu nuyu ma ko gantuwuma ko nee ko gantuwuma ko de damaa tële damaa tële waaye jébbal naa ko sama waaye jébbal naa ko sama lépp nee na ci ñeewante waajur ak nee na ci ñeewante waajur ak doom te booba guddi na te booba guddi na booba réew mi melul nii booba. booba réew mi melul nii. fépp ab gor la. fépp ab gor la. waxuma la luy leer. waxul luy leer. waxul waxuma la luutu bata. waxul luutu bata. waaye luutu sareet sax doo ko gis. waaye luutu sareet sax doo ko gis. nee te booba mag la moom. te booba moom maam Birame mag la. te nee man booba. te nee moom seen saa booba. leerul sëñ bi. leerul sëriñ bi. gan na ko moom du ma sonn. gan ko ba du sonn. sama doxit day gaaw te it ab doxam danoon gaaw nee mu jóg topp ci man nee na mu jóg ma ci loolu ngir ñeewante ko woon ca loola waaye ne jéego yu néew lañ dox rek waaye nee na jéego naan néew lañ dox di fay raw fi mu bi fotuma jël topp négo topp ci moom laa daal di gis jibril lan la daal di gis jibril alayhi salaam ci melokaan wa soob yàlla ci nee mu ni nee na mu ni joxu ma nag ak wax yu joxu ko nag ak wax waaye wax xamal na ma li ma tax a jóg waaye nee na xamal na ko li ko tax a jóg wax may secret ci ki jóg wax la may wax ko ay secret ci ki mu jóg mu dal di ñëw Thiey mu dal di ñëw Thiey wax ko yoonam wax ko yoonam mu dal di ci moom mu dal di jéblu ci moom ànd moom sëñ Baara nee na. sëñ Baara nee na. nee na bi mu ñëwee ba déggu mbal bii. nee na bi Cheikh Saa ñëwee ba ci déggu mbal bii. ah boo jigéen a sëñ bi. nga xam ne booba jigéen a sëriñ bi. daanaka yegg na. daanaka yegg na. ñu fekk fi doom déem gu yaatu. nee na ñu fekk fi déem gu yaatu. buub ko ba mu set. ñu buub ko ba mu set. ñu toog fa. ñu toog fa. ngir faral seenu ñaq. ngir faral seenu ñaq. ak faxas seen pënd. ak faxas seen pënd. sëñ Baara nee na. sëñ Baara nee na. Cheikh Isaa nee na ko. Cheikh Isaa nee na ko. boobu nelawuma. nee na boobu nelawul. gëmmentuwuma. gëmmentuwuma. waaye jëpp jëmm joo xam ni jëpp jëmm joo xam ni ruuga mi àndal ruuga mi àndal jëmm jo war naa wuyoo jenn ci àdduna jëmm jo naa wuyoo jenn ci àdduna fekk na ma foofa ko foofee jëpp lu ci man jëpp lu ci moom te eggaguma ci Serigne Touba te eggaguloon ci Serigne Touba nee na booba nee na booba su fekkee daraja bu fekkoon fekkoonte ni daraja wala mbooloo wala mbooloo walay taalibe walay taalibe moo ma tax a jóg moo ko taxoon jóg nee kon na kon foofee lay wuñu ko ndax jot naa ci cëram ba noppi booba jot na cëram ba noppi dama koy tënk nag nee da koy tënk rek moo tax bi ñëwee sëñ béet moo tax bi mu ñëwee ci sëriñ béet bi mu jébbaloo bi mu jébbaloo mënta yàgg mënta yàgg aw sas la ko sëriñ bi bayloo aw sas la ko sëriñ bi bayloo dal di koy gërëm dal koy gërëm mu bëgg a toogaat di diisoo mu bëgg a toogaat mais dañu diisoo sëriñ bi bëgg a toog di ñanteeg moom ci loolu di ñanteeg moom ci bëgg a toog xam sëriñ bi xamal ko ni ko sëriñ bi xamal ko ko yow jantu tey dina bari ko fal woon ci yoonu murid dina te dana fuliko te dana fuliko kon nag kon nag dikkal boo demee dikkal boo demee magi taalibe nga fa fekk magi taalibe ya nga fa fekkoon nga def ni ñoom nga def ni ñoom nee na booba nee na booba sëñ Masamba Diop Sam mi ngi toog sëñ mi gi to wax Serigne Touba ne ko. nee na sëñ Massamba Diop Samb wax Serigne Touba ne ko. Issa mii di sëñ bi. Issa mii di sëñ bi. daan na ñëw fi man. daan na ñëw fi man. ba ma yaakaar ne sax. ba ma yaakaaroon ne sax. dana jébbalu. dana jébbalu. waaye Serigne ne ko. waaye Serigne bi ne ko sëñ Massamba. Issa mii. mais mii. kenn ëttu ko kudd man. kenn ëttu ko kudd man. te loolu Serigne Touba. te loolu Serigne Touba. baamu na ko ay yoon yu bare bare. baamu a ko ay yoon yu bare bare bare bare. mag ñi mu bokkal Serigne Touba. mag ñi mu bokkaloon sukkal Serigne Touba. sukkal Serigne Touba. Serigne Touba ni ko. Serigne Touba ni ko. nii nga may defal. nii nga may defal. képp koo ko defal ku man. képp koo ko defal ku man. mu jóge fi ci lu gaaw. mu jóge fi kenn ëttu la ku dul man. yow Issa kenn ëttu la ku man. li ma doon wax ci njëbbal gi nag. nee na li ma doon wax ci njëbbal gi nag. li ko yonent bi feeñoo. loolu du samay wax. nee na loolu du koy waxam. du waxee Cheikh Issa. du waxee Cheikh Issa itam. loolu Serigne Touba ko bind. man bi ma jógee jëm ci yàlla moom sëñ Tuubaa bi jógee jëm ci yàlla ne yàlla sunu borom yàlla sunu borom damaa tegtal da koo tegtal ni ma demal ci yoonanti bi ni ko demal ci yonent bi bu la gërëmee bu la gërëmee dana la indi ci man dana la indi ci man dala ni yàlla ala muhammadin dala ni yàllaahu ala muhammadin waxaadani Muhammad ni samadi waxaadani Muhammad ni samadi néewul damaa nekkan fa yàlla néewul damaa nekkoon fa yàlla néewul damaa xotti asamaan si dem ci néewul it damaa xotti asamaan si dem ci yàlla nee na yàlla damaa tegtal nee na yàlla da koo tegtal tegtal ma yonent bi mu tegtal ko yonent bi boo jàngee xasida ak saara illaahi boo jàngee xasida ak saara illaahi Serigne Touba da caa wax ni Serigne Touba daf caa wax ni dala xaalayal xulama wala awliya dala ne laa xulama wala xulama man laa yasalu xuwati wa xawliya man laa yasalu xuwati wa xawliya ñi nga xam ne dañoo bokk ci wali yu mag ñi nga xam ne dañoo bokk ci wali yu mag yi di borom xam-xam yu mag yi di ñooñu bu ñuy ñëw ci man ñooñu bu ñuy ñëw ci man yonent bi mooma leen tegtal yonent bi moo leen di tegtal kon Cheikh Issa kon Cheikh Issa lii ma wax lii mu wax du may samay wax du ay waxam de du waxam du ay waxam Serigne Touba ko bind Serigne Touba moo ko bind yonent bee ko tegtal yonent bi moo tegtal Cheikh Issa Serigne Touba mu dem ci moom mu dem ci moom koo xam ne bi ngay dem Serigne Touba koo xam ne bi ngay dem ci Serigne Touba yonent bi tegtal lu ko yonent bi tegtal lu ko ak boo Cheikh Issa ci wax ak boo Cheikh Issa Dieng ci wax kon ñun ñi ko yaakaar kon ñun ñi ko yaakaar am leen fulla nan am fulla te góorgóorlu te góorgóorlu média yi ngeen di déglu média yi ñuy déglu ñi ciy wax ñi ciy wax di soow di soow li ci ëpp li ci ëpp waxuñu dëgg waxuñu dëgg ab xaalis rek lañu wut ab xaalis rek lañu wut kon nag kon nag góorgóorlu bu baax a baax nan góorgóorlu bu baax a baax rek te am fulla te am fulla jërë ngeen jëf yan yàlla na fi yàgg diwén yan yàlla na fi yàgg diwén nangu leen ñaan yan yàlla na fi yàgg diwén yàlla na fi yàgg diwén yàlla na fi yàgg diwén jàmm amin jàmm amin jàmm amin jàmm amin jàmm amin jàmm amin jàmm yàlla yàlla nañ fi yàq tuuti yàlla nañ fi yàq tuuti. li rabbi xuróomi ma lu xooli bi manzili ma qablo ma qaala min tasalsuli loo suuru aydan ba daan bil muxalladin ala al mustafa xayril baraaya al mufaddali li rabbi daa laazim tuabdil muqaadiman لمن الفضل بادل لنا زينا قلي لقد جاءكم قد جاء أنا مادع لكم من الله سلسل هزيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المدل هداي المكملين لا الذي أريد لقرما نبوة وآدم بين الماء